mbokk yi ñu ngi leen di nuyu instant yi nag ñu ngi nuyu tribunal de Dakar ci li nga xamante ne mooy mbiru Ada kii nag ku ne xam na ko muy ay dara Mbacke Niass macha allah mu ne ci TikTok bi di ci liggéey liggéey bu am solo mais ay xaritu Ada Fass a ngi ni ay doomu ndeyam a ngi ni Aïdara maa lay nuyu bu baax teewaay bi tey fii ba yëg-yëg nga ci am ak situation bi nga xamante ne dal na Ada Fass. ndeysaan maa ngi lay fay ah, di di bëgg képp koo xam ne yaa ngi nekk ci. site bi di seetaan xam nga di jaajëfal waa àddina di siyaar internet yi nga xam ne ñooy jàmbaar news mm. te daanaka suñu wax du ci bëri suñu teewaay mooy kon ñu teewee ci ñi taxawee yeneen mbër nga xam ne nekk ci jafe-jafe yàlla fa def ñun ci làmb la nekk mm. te tey mbër yëpp na leen yéen a jàmb yéen a leen ñu am carrière yéen a leen ñu doon ay champion mm. Ada yàlla def mu am problème démb mooy coow noonu ñu jël ko placé ko garde à vue après ñu andi ko fii nga xam ne moo di moo di tribunal parce que procureur da ko war a entendre moom la xaar nii. Mhm. pour ñu mën a xam après fan la gerte mu njëkk wane. danoo ñëw comme ni ñuy taxawee yeneen mbër yi. Mhm. loolu kese moo war di ko ñaanal suñu borom def aada génn. Mhm. bu génnee rek na xam fu muy tegaat tànkam. parce que tey mbër champion la. te tey bëri na ñoo xam ne tey maanaam dañuy ànd ak mbër te duñ ko wax dëgg. maanaam Ada Fass yàlla dafa def amul lu may hésité ci moom bu defee loo xam ne du yoon sax man damay def vidéo ne Ada Fass fi nga teg sa tànk baaxul moytu lii defal lii defal lii defal lii ma dama ci doon dégg lu nekk te yàlla def mu nekk ci problème ñaanalu ma ko woon quoi mais maa ngi ñaan yàlla suñu borom def mu génn quoi comme ay moromam te bu génnee ma xam fu muy teg tànkam xam li ko war xam li nga xam ne làmb moom la bëgg ak li làmb bañ ki nga xam ne moo ñëw di la wax dëgg ne la moytu mooy ki nga xam ne moo di la bëgg mais bëri la ñoo xam ne dañuy ak moom mbër di ko jay naa ko defal li defal li man gëma lool te tey ñi nga xam ne ñoo ko doon jay gisuma ci ñu bëri tey ñëw taxaw ci problème bi ñaata ñaata nit ñooy topp mbër mi naan ko non moom la ñuy topp moom la ñuy topp tey ba mu ñëwee quelques personnes fa gis tey moom bu génnee mbër na mun a gën xam fu muy teg sànq ak xam ñi nga xam tamit ñoo wax dëgg di ko sonn di ko mais ada fi mu toll waaw ci làmb mm-hmm. toll ko ci réew mi toll ko ci xel xolu mm-hmm. supporteram yi est ce que war na toll fu ko nit di jayee ba muy def loo xamante ne waru koo def. waaw mais àndandoo loolu day def loolu Adama moo war a xam fu muy teg tànkam te xam ni mbër la moo war a xam li mu bëgg moom dafa ñëw mu ne dama bëgg a doon roi des arènes. Hmm. kon xamal am na ñoo xam ne ñu ngi topp sa ginnaaw bëgg la rek te yàlla tax joxo lekk joxo ci kenn ñu naan tey Ada Fass li mu am Fass ñu fay door am phénomène boo xam ne tey boo génnee mbooloo moo lay topp. Hmm. kon tey maanaam bu mbooloo toppee yàlla da la dénk loolu noonu maanaam koy sàmm def ñoom li mu bëgg am na ñoo xam ne ñoom moom la ñuy topp te ñu ngi dégg lu nekk ndax moom kon moom na delloo si xelam xam li mu bëgg dem lëlu mbër da ngay am am gét di dem di entraîner bu nangu ñu lay gis si yenn détails yi hmm. yàlla bu defee nga dem ba ñu lay commencé tëkkaleeg ak ay mbër wala ñuy def sa combat ak ay yenn mbëru VIP hmm. kon xamal li la war bul nangu ñi ñu ci bëri di wax ne Ada ah, gis naa ko fii def na li def na li mais bu génnee na xam bu baax ci ñi teg tànkam hmm. sincèrement li ñu gis fii dafa mel ne Ada Fass nag dafa te wéetaay gi ñenn ci ay membre staffam ñu ko jege ci wàllu làmb ba ci ay président écrim ñu bëree bëri gisuñu leen fi lan moo tax dañu digal xale bi mu bañ def waaw wala dañu ko mere wala dañu ko bëgg a bàyyi yoon corrigé waaw man dama naan def vidéo ma ne Ada Fass hmm. est-ce que am na staff wala soit Ada bu amee staff est-ce que mu ngi déggal staffam ñaar mooy mën a nekk soit staff bi di ko conseillé moom di ko déggal wala staff ko conseillé te loolu après na leer tey ba nga ñëwee ji fi mais moom après war na ci jël leçon rek. Hmm. mais Ndongo Lo day wax benn affaire mu ne balaa ngaa xam ñi la bëgg nga nekk ci jafe-jafe. dëgg la xam ñi lay tiitaroo li la safoo na la toog. Hmm. nga nekk ci problème am na ñoo xam ne ñu ngi toog seen ruq nag di ko jàppale ñenn ñi xëy na nag ñàkk jot moo war ñëw ñu mais am na ñoo xam ne tamit xëy na danoo wax mbër mi mbër mi dëgër bopp wala ñu dem ba mënatuñ ci mbër mi dara xëy na sax mm. moo waral ñoom ñu mënul teg seen tànk fii quoi macha allah ñun dama leen di comprendre jaajëf maa lay jaajëf mm. sama waaj maa waa mm-hmm. ñu la delloo ziar tur bi laay laay laay laay bu waaw laay rek laay waa dafa laay ndagaaru laay waaw yaa ma gën a xam daal mais laay tey li ñu indi ci tribunal bi dafa mel ni du lu du nouvelle bu neex ci ñu ci ñi bëgg làmb mooy Ada Fass yoon du ko téye tey mu war a jàkkaarloo ki nga xamante ne mooy procureur de la république ban gis bi nga jaax ak mbiru Ada Fass nan ngeen koy dundee yéen. waaw loolu jaar-jaaru àddunaam la quoi. Mhm. suñu borom moo ko bind. borom lu mu si yow. Mhm. su jotee rek day day ñëw. Mhm. jaar-jaar la quoi mais ñoo ngi koy ñaanal. génn loolu lañ koy ñaanal bu baax a baax. neexuñu nag waaye mbirum suñu borom la mënuñu si dara. mais su toogoon fu mu war a toog. Hmm. jàpp ñàmburam. Hmm. xëy na li yëpp du ko ci fekk quoi. Hmm. noonu la demee nag mais su génnee na toog su ko comme jàpp ñàmburam. dagg biyee. voyage yi quoi. yaakaar naa looloo gën. mais yow bokk nga ci ñuy jege Ada ndax tey situation bi nu mu demee nii. gis nañ ne ku mëna a ay yitteem ñëw fi rek xaritam nga mbokam nga doomu ndeyam mais est ce que di ngeen tok yeen ñaar di waxtaan nga koy conseiller diko ko jaarale fi waru champion war mëna jaar ci lamb wa ñun mom ñong koy conseiller deug na yàlla ñong koy conseiller bu baaxa baax mais ci bir conseiller bi tamit xëy na deug ci ñi wax mais mënu ñu ci dara parce que ñun conseiller rek lañu mën ci yow lay conseiller mëno deggu tamit du la doo la saaga mm-hmm. wax rek lañu mën ci yow loolu kese billaahi loolu rek la ñu mun ci moom bu génnee tay ban taxawaay la war a taxaw ban taxawaay la war a taxaw waaw làkkatu dem entraîné ji xam boppam parce que am na combat bi waaj a taxaw hmm. am na combat bi waaj a taxaw hmm. waaw na làkkatu combat boobu war a signé léegi léegi léegi léegi léegi hmm. sëñ Bamba am na combat bi waaj a taxaw waaw combat léegi léegi léegi da ngay signé te mbër moomu mbër mu mag. mbër bu mag mbër bu mag. mbër moomu ay tëdd di nelaw daanu ko. mbër moomu ay tëdd di nelaw daanu ko ay foo ay dem yi nii ay soirée yooyu noonu daanu ko. Mm-hmm. yooyu yëpp da ngay bàyyi. Mm-hmm. yooyu nekkatul lëwët liwam loolu naka da war a bàyyi tege ko na leen. Mm-hmm. soirée yu muy dem war a bàyyi carrément naka bàyyi barke alxuraan. naka jël tege na leen. macha allah yi naka bàyyi tege ko ne nekk ci entraînement am. jërëjëf maa lay màggal. tur bi nan la Jibi. Jibi Ngor ah, Ngor. waaw waaw Jibi bi. dégg nga ah. sa gars yi kàddu yi ñu yëkkati yëpp. ah dañu ñëw taxaw rek suñu garanteer aada rek. aada mm-hmm. moom làmb boole ñu quoi. Mm-hmm. famille moo ñu boole quoi ñu naan. Mm-hmm. bu nekkee ci naqar dañu war a ñëw taxaw ko bu nekkee ci bànneex dañu war a ñëw taxaw ko. tey ñaan yàlla yàlla génne si li mu nekk ñu rek. waaw mu nekkaat ay entraînement am. waaw. mais aada chaque jour. mom yakarna ni bokku na ci mbër mi nga xamante sa yo xeye da ngay deg jappal aada indil aada aada bu duggé ci li genn ci lee dem na ba ñenn ci njabotu lamb san nee ñom duñ def sorti di wax ci aada fas parce que ah, wax nañ waxati waxati mi mom déggul ah, parce que aada tam yalla non la ko bindé quoi nit ku nekk yàlla mu lay bindee aada dafa am biru hmm. aada dafa am biru aada mi ci biru biir yi la nek te lébu yi boo nekkee si biir bruit yi da lay bëri hmm. billaahi wallaahi taalaa loolu rek bu lenen aada fa ngi ndeppal ko de dañ ko wara ndeppal mu mën tok yam aada faaw ñu dëppal ko. te di ngeen ko dëppal. te ngeen dëppal de mu mën a yem quoi.